yi xam ne létal yu mën a reyee nga ne ko xool ko à bout portant rey ko kooku la gars war a waxal et malheureusement il a une hypocrisie dans ce pays les gens parlent de xale yi ñoo war a génn xale yi war a ñoo génn xale yi dans tous les pays du monde ñuy génn ce que dans tous les pays du monde ñu ngi rey xale yi la la réponse est non donc wax dëgg yàlla man je voulais que que lumière soit faite sur ces soixantaines de morts la euh, yu am ci dëkk bi bon morts yi yokkuwaat na encore euh, yàlla na yàlla yërëm leen te xale leen aljana ñetteel bi c'était d'exiger la démission du président Macky Sall ndax Macky Sall nag wax dëgg yàlla dafa boole ñaar yi nga xam ne ku ko am euh, malheureusement jiite dëkk dangay nekk un danger pour ce pays là muy l'incompétence ak ak ak l'incapacité Macky est incapable et il est incompétent wax dëgg yàlla ñaar yi il l'a démontré ci 12 ans yi xam ne moom la jiite donc man ñett yi ma wax euh, sur fond d'une manifestation pacifique man mënuma comprendre ñi ma ciy woo di ma yóbbu dikk ne may entendre andil ma daggal ma euh, vidéo yi tegal ma ko ne ma ndax yaa wax lii ma xool ko ne waaw macha allah lii kay maa ko wax te fii sax mun naa ko fi waxaat te bu ma génnee naa ko waxaat mais nous exigeons que ces détenus politiques là sortent des prisons lii fu ñu taxaw on va l'exiger nous exigeons aussi tamit que lumière soit faite su ces cas de meurtre ces cas de torture ak lépp li nga Sénégal moo signé ay convention ku dem xool le pacte international sur les droits civils politiques et cetera article 6 7 8 9 Sénégal moo ko signé dugal ko ci préambule constitution ne man lii gëm naa ko naa ko doxal donc ku ne man du ma torturer du ma def ay traitement dégradant inhumain euh, dévalorisant du ma rayaate du ma toroxalaate mais li ko ko signé respecté parce que tamit la qualité d'un pays c'est d'honorer ses engagements en réalité soo signé dara respecté ko état Sénégal nag c'est un état voyou il respecte aucun ses engagements bu CEDEAO waxee ak moom sax du ko faale bu CEDEAO ne ko parrainage bi nga xam ni baaxul xoolaat ko Macky dafay ne je m'en fous koy def lu ko neex ndax xam na ni CEDEAO bi c'est un syndicat euh, de président yi xam ne ñun ñëpp ñoo àndandoo te ñoo far ay tappalekat kese fa nekk ñun nous attendons toujours la CEDEAO des peuples ndax ba léegi amagul donc trois yi ma demandé ça doit interroger sax euh, ñun suñu constitutionnaliste yi parce que boo demee États-Unis le peuple bi xam ne moom moom souveraineté am na possibilité destituer un président bu dañoo jàpp ne kii wàcc na yoon bi wala kii war nañu wala kii liggéeyul impeachment chaque fois gars yi di ko xool si média yi di xool muy menacer ay présidents américains boo demee en France et dans tous les pays yi nga xamee ñu ngi woote ni ils sont démocratiques le peuple a la possibilité un de de présenter des lois a l'Assemblée ñun fii Sénégal amuñu ko que ñun suñu ne la souveraineté appartient au peuple c'est a des mensonges nous n'avons pas la souveraineté nous et ñuy représenter li ñuy dox ci intérêt bokkul suñu intérêt quand les députés von à l'assemblée dañuy pousse élection dem leen ngeen def enquête xool sénégalais benn sénégalais bëggu ko donc ñii ils ne nous représente pas ils représentent leur parti li laay woowee nag la démocratie représentative c'est un danger dañ ci war a xalaat wala ñu ci xool ci réforme yi war a demee ji ñun nous voulons une démocratie participative dañoo gëm ni le peuple a son mot à dire ndax ku teew kenn waru ko représenter représenter signifie que nit ki dafa fàddu nekk fi nous sommes là donc ñun dañoo war am sañ-sañ bu ñu bëggee dara ci loi ñu mën a am un nombre de signatures requis yi nga xam ne loolu c'est c'est facilement organisable on sait que par exemple député euh, ñaata ñaata la gars amoon je sais pas parrainage ak yëpp 65000 ku ko am ci élection euh, législative di am un député au moins donc suñu amoon peut-être 65000 signatures de sénégalais ñu ne ñu kat ah bëgg nañu loi sàngam ñu xoolaat ko loolu war na mën a dem assemblée parce que 65000 signatures de sénégalais mais c'est un et comme que un député am na droit dugal une loi au bureau de l'Assemblée le peuple war na tam droit boobu bu ñu amee loi bu ñuy ñu mën a fixer par exemple euh, bi war nañu ko réexaminer pour retirer ko ndax nag see lois sont faites pour ñun pour ñun la bu dee pour ñun la war nañu ci am sañ-sañ donc man j'ai posé ce débat là ce débat de la démocratie représentative boo xam ne dafa am ay limitam le débat d'un président bi xam ne il doit pas être omnipotent président war nañu ko mën bu dee wàcc na yoon te Macky wàcc na bu yàgg nekk nekkul sa si yoon bi mu ngi si ñàll gi di wéy donc aujourd'hui euh, su ma gisee même waa assemblée euh, tappalekat yooyu nekk Benno Bokk Yaakaar ak seen mbokk tappalekat yooyu nekk nekk PDS nee noonu dañuy setal seen candidat Amadou Ba balaa ñoo dem élection ba tax ñu perturber chambouler tout le calendrier républicain alors que crise amul si dëkk bi ça me fait rire ñoom balaa ñuy setal Amadou Ba dañuy setal Macky Sall Macky ne fricote qu'avec des délinquants tubaab dafa wax ne dix mois kii tu entre je te dirai qui tu es Macky ay xaritam yëpp ay délinquant lañ ay sàcc yu mag ñooy ay xaritam Franck Timis ñëpp xam nañ ko Franck Timis est un délinquant notoire connu euh, partout il est poursuivi sax dans beaucoup de pays du monde il y a des plaintes ñu fii xamee ñun man bokk naa si nga xamee euh, dugg nañ ci collectif yooyu pour ñu plainte Franck Timis Franck Timis euh, am na plainte dans presque six juridictions en Angleterre aux États-Unis à Singapour en Roumanie plainte dañ ko fu ne en France ak fépp parce que sàcc la temps yi kenn déggatu ko ci affaire pétrole bi mais temps yi mu ngi ci mu ngi ci suuf ci Sénégal mu ngi ci suuf si boo leen xoolee yaa scandale bi nga xam ne peut-être ci yaatal dans les jours à ci ñëw au niveau de la région de Saint-Louis à Nginth y a plus de vingt six mille hectares yi nga xam ne Macky Sall jox na ko Franck Timis nee na il l'a acheté à huit millions de dollars lu tax suuf boobu yéeme su dafa yéeme parce que moom nee li mu bëgg a bay il veut faire une culture de luzerne luzerne dañ koy jëfandikoo pour mën a xont pour dundal euh, voilà fourrage la vingt six mille hectares yooyu moom vingt mille hectares la jël di ko def nee na pour bay luzerne boobu mais écoutez bien culture luzerne boobu c'est destiné à alimenter wala à nourrir ay nag ak ay ay mala yi nga xam ne nekkul Sénégal moom nee na il vise le golfe Persique ak yenn pays arabes yi nga xam ne seen li ñuy yar moom bëgg na leen mu gën a gagné marché bi war a xot waaye ñun an suñu politique de développement yi en matière agricole en matière euh, élevage te li gën a grave ci loolu mooy culture luzerne luzerne dafa bëgg ndox maanaam dañoo nar a nekk di pompe lac de Guiers ndox pour mën a yor tool boobu li ñuy pomper pour mën a reste pour mën a gérer vingt mille hectares yooyu ëpp na deux fois li ñuy pomper de guerre di ko andi pour alimenter la région de Dakar je vous laisse imaginer quelle est la quantité d'eau qu'il faut maanaam il faut deux fois plus d'eau que pipeline yi nga xam ne ñooy puiser ndox bi de lac de Guiers di andi Dakar pour pour joxe ndox li muy andi yëpp ci ndox Dakar il faut deux fois ce volume là pour mën a gérer toolu Franck Timis mais Franck Timis ne pa le seul Franck Timis dañu ko takkal avec les décrets 2012 le décret Clédor daf ci wax a wax ba sonn mais c'est pas le seul Bictogo Adama Bictogo ancien ministre ivoirien ak affaire u tappaleem yooyu nga xam ne ak 13 milliards Sénégal yi mu jël lekk ko il a été poursuivi en France c'est un sàcc la bu àdduna bi yëpp xam waaye xaritu Macky Sall la Macky jox na ko marché bi nga xam ne marché boobu ADIE mënoon na ko def avec moins d'argent ñi tëb ADIE jox ko Adama Bictogo bi nga xam ne je demande yéen journalistes dem xooli quels sont ses liens avec Macky Sall jox ko marché boobu retiré ko ko dédommagé ko jox ko 13 milliards xaalis Sénégal kooku il est poursuivi en Europe kooku waa Benno demande nañu sala seen au-delà de Bictobou mais euh, ba ci le ministre ivoirien là euh, Mahmoud je sais pas quoi là même kooku il a été condamné sax moom déjà jàpp ko mais kii xaritu Macky Sall bu Macky jox ay marché euh, fii ci biir réew mi donc ñun Macky xam nañ presque une trentaine de personnes yoo xam ne jox na leen ay marché Sénégal ce sont des personnes yoo xam ne peu fréquentables pour la plupart ce sont des drogués ñenn ñi c'est des délinquants yoo xam ne ils sont recherchés dans b de pays ci àdduna bi et ces gens là au Sénégal di fi am ay marché te waa Bennoo jéemuñu sala seen candidat bi xam ne ne seen candidat bi ay délinquants lay fréquenté donc il y li gënoon jàmp muy ñu setal Macky ci affaire ArcelorMittal scandale bu rëy la plus de deux mille cinq cent milliards ñu waroon ko fay Sénégal Macky dafay waxaale ak ñoom baal na leen ko dañ joxe soixante quinze milliards kese mais li scandale gënu ko rëy mais le TER BRT Macky léppam c'est que Macky c'est un homme à scandale man dina ma jaaxal Macky na lay def ba rëcc ma yëgalaale ko nag ne ko jënga nga xale kaso yi ñu ngi lay xaar de pied ferme ñu bëri neen dañoo bëgg Macky ñëw seen chambre ñoom ay chef de chambre yu xaar Macky xam nga c'est grave li musul am ci président un président bi xam ne euh, impopularité bi la am gars yi ñëpp jëppi ko ndax lebalul kenn lu baax Macky lebalul kenn ci dëkk bi lu baax